people ba dañuy del soit ci wàllu politique dembu gis nañu ki nga xamanteni moy premier ministre bu nekk de la république du Sénégal sol dalam dem discrètement c'était ki nga xamanteni moy khalife général des Tidiane des sëñ Mbaye Sy Mansour mhm. jógee fa seeti ki nga xamanteni moy mooy sëñ ñukoy rafetlu bu baaxa baax en mhm. tant que premier ministre mhm. mais dañ daan gis ni que bu njëkk su doon dem da doon créer benn bruit ñëpp koy yëg cortège yi mais ñi gis mu def ko ci sobriété ci discrétion té barki dembu ki nga xamanteni mom la yalla denk bop réew mi di Bassirou Diomaye Faye bi mu solee dàllam di dem gënoon na rafet ñu bari gisoon ko mu ànd ak moom gunge ko mais gisuñu ko mu gunge ko dafa bàyyi ba kooku dem ba noppi moom mu dem ci ginnaaw ñenn ñi jàpp ni da koy ndaxte bërki dem bu bi Macky Sall di recevoir kii nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Faye dafa ànd ak Bassirou Diomaye Faye gunge ko te moom ñëpp xam nañu Macky Sall ab noonam la woon ndaxte taxaw na fii jiñ ko lu nekk ba lu ko dal ne Macky Sall moo ko ko teg tey naka nga jàngatee visite bi mu def foofu ca Touba waaw visite bi ni ma ko jàngale ginnaaw bi nga xam ne rafetlu nañ ko ndax jullit sol dàllam dem seeti mbokkum jullitam loolu rafet la la tey lu ñu rafetlu la waaye anam bi ñu koy defee rek nga rafet lu mhm. loolu mooy lan mooy temps maag yow kat dañoo ànd ma ma jiitala ci mbir mi ngi mel ne télé bi day am ay protocole mhm. kii mooy directeur de technique kii mooy directeur de programme kii mooy nangam waaye boo jekkee-jekke rek ne Oustaz kaay am bi ko baa nga ne suba defal émission mhm. kon ki nga tegoon ci directeur de programme bi lu mu fa doon jëriñ na démissionné na xam ne kon man du ma duma fi dara de mais moom da ko war a njëkk respecté ndax booy wan nit ñi respecté li protocole yow day fekk yow it mais yow bu dee respecté woo protocole li ñuy tere yëpp yaa koy def mën a wax mën a wax goo xam ne lu xew nga wax lu xewul nga wax lu ñor nga wax bu ne béy bi kii na sax nga ne xaaral ma génn wax loolu lépp kilifa daf koy maytu ndax boo xasee ba nekk kilifa da ngaa war a xàmme li nga moom li nga moomatut ci sa bopp ndax amatoo sañ-sañ ci sa bopp de parce que tey waxuñu en tant que Ousmane Sonko bu nekkoon këram di julli di jaamu yàlla ne ci boppam kenn du ci moom mais dafa dugg nag ci loo xam ne ñun ñëpp dañ ko bokk moo yor sunu alal it nag teg mhm. kon bu defee lu jaaduwut dañuy taxaw fii wax su defee lu rafet it danañ taxaw fi wax ko waaye lu mel noonu ñun duñ ko rafetlu ndax li tax duñ ko rafetlu mooy ànd dafa ëpp doole tàqalikoo wax tasimu bi hablillahi jamian waaye wala tafarraqu yàlla daf ni jàppale nit ñëpp ci buum gi te bu leen teqalikoo mais bu ngeen di def par benn benn rek réeroo day daal di am ci suuf kilifa gi yaa ko fal mi ngi dem waaye loolu li ma ciy dégg rek mooy day mel ne da nga fal nit ki ba noppi tourné nag ba ko gën a bëgg nag li mu yor d'accord waaw loolu nag moo ci am d'accord